jërë ngeen jëf moo ko internet yi ginnaaw bi ñu leen di yoo dal leen ak jàmm ci seeni actualité du jour des koy door ak coobal trafic bu passeport diplomatique yi nga xamante ni jamono ji lëmbe réew mi jëmale ci ñaari député yooyu di du Sall ak bi yaay ginnaaw nag seenu noppi lu yàgg ñi di waa assemblée nationale ñoom daal di nañu jug àddu ci kii di Moustapha Niass nag di njiit la la mu xam ne rek mooy du ñu am benn farfarloo boo xamante ni rek dinañ ko def jëmale ci affaire trafic boobule. nee na nag mbir mi sax nag dañu ko bàyyi ci loxo yi kii di ministre de la justice muy maître Malick Sall te keroog rek bu leen saisiré ñoom waa assemblée ni leen dañoo soxla ñu yëkkati mbaraanu kiirlaayu ñaari député yooyee. du am dara rek luñ ciy teg dinañ def procédure bi comme ni mu waree daal di koy yëkkati su ko defee ñoom ñi de ñu mën a dem wuy ji justice jëmale nag ci loolu nga xamante ni ñu ngi ciy tudd seeni ay tur foofee ca diwaanu Malika nag moom jéye moom moo fa am ginnaaw benn kermes bu ñu organiser woon ñoom xale yi koñ ba di ca foo kenn ci ñoom nag dafa daal rek faat beneen moromam boo xamante ni nii ay atam mi ngi toll ci fukk ak juróom donte sax nag moom mi le loolee mu def tayu ko ci biir kermes bi nag ñoom ñi le dañoo mujjee rek am lu leen jotale ba ñuy xeex te xeex ba nag la ko indi sax mooy ñaari groupe yoo xamante ne nii ku ci nekk ak ña ngay àndal ñoom ñi le ñoom ñoo songoo woon ba jéye ji daal di ci am kii di fallu fàll moom mi le ay atam toll ci fukk ak juróom moom dafa mujjee ñàkk bakkanam moom mi le sax ab apprenti mécanicien la xaritam bi nag di wuyoo ci turu Lamine Seye moom mi le benn peerub ciseau moom la ko dee rek jam ci la mujjee ñàkk bakkenam yëf yi mi ngi xew ni ki àjjuma bi ñu génn 17 septembre bi 22h euh, di jot kermesse bi naka ñu ngi ko organisé woon foofee ca croisement tali bu xonk nekk foofee ca commune bu Malika kii di Fallou Fall mi nga xamante ne moom moo ñàkk bakkanam ak yeneen i ay moroomam rek euh, bokk na ci kii di Lamine ñoom ñu nga doon euh, organiser lépp rek ba soire ba mën a jaar yoon. waaye beneen groupe bu xale ñoom ñoo ñëw rek daal di débarqué ca bërëb ya daal di bokk ci fête bi par la force ndekete ñoom ñi lee yàq moo leen a taxoon a jug ndax ginnaaw bi fête bi di déroulé wu ñoom ñi nag dañoo bëggoon a jéem rek sàcc xaalis bi nga xamante ne ni jot nañ ko collecté ci kermesse bi ak jeu yañ cay def si noonee nag ci lañu commencé songoo xeex ñoom ñi lee ci biir xeex ba nag kii di lamin moom sacoche bi nga xamante ni moom moo defoon xaalis bi moom moo ko yoroon te xale yooyu nag dañoo daal di rek waroon ko bëgg jël lii di uh, sacoche bi këf ko si moom daw moom Lamine nag ginnaaw ba xamatul lu muy def uh, ciseau bi nga xamante ni moom la yoroon ci biir ay poche moom la génn rek daal di koy jam ci air bi ndax gisul woon li muy def fekk ne nag xaritam bi di wuyoo ci turu Fallou moom la daal di jam ci bopp moom mi le dañ koo mujjee évacuer foofee ci centre de santé bu yëmbal soins médicaux yi ñu ko defal yëpp itam moom teewul ci guddi gi dafa mujjee ñàkk bakkenam ndax mettit yi mënu ko woon supporter xaritam bi nag di Lamine Seye moom ci guddi gi ci lañ ko fekk ca këram itam nekk foofee ca quartier Darou yóbbu ko commissariat bi nekk foofee ca diwaanu Malika daal di ko fayte en garde à vue fi ne ni nag ñu ngi ko fas yéene defeere moom milieu di Lamine jëmale ci homicide involontaire ba tey foofee ca diwaanu fas mbaaw foofu nag benn xale ay atam toll ci fukk képp moom mi leen moo xoj benn moroomam boo xamante ne ni juróom-ñaari at la am ba mu ñàkk ci euh, bakkenam ñoom ñaar ñi nag di yow ci turu yaaya bee ak kii di Cerno de dañoo nekkoon rek di fo ak seen i yeneen yi moroom bi ñu amee nag li leen jotale seen biiru foo boobu ci la ñu songu xeex ñoom ñaar ñi kii di yaaya nag ci la tëbee daal di dal ci kaw Cerno laata mu ko poñe daal di koy sës ci miir bi jël loxoom daal di koy plaqué ci baatam laata mu ko xoj kii di Thierno nag moom jéem naa dégagé ba sonn waaye mënu ci woon dara ndax yaaya moom moo ko ëpp doole moom foofu la mujjee rek ñàkk bakkenam njabootuk xale bi nag di Thierno ñoom ñi le sax dañ ni yëf duñu ko yóbbu ci yoon ndax xam nañ ni yëfi xale la te moom yaayam mi ba muy def loolu jublu ci woon rey ko xamul woon ni sax itam moom mi le rek xoj xaritam bi mën na koo yóbbeel ba mu ñàkk ci bakkenam kii di Mamadou Ndiaye moom bëgg xaalis bu bari moom moo waral mu daanu ci piège yu mara bi di wuyoo ci turu sàmba Ba moom mi li nag daf ko gëmloo ni ko ah, dina ko indil xaalis lu toll ci 7 millions yu mu koy liggéeyal ah, ci bu ko indilee rek 2 millions 500 mille moom Mamadou Ndiaye noonu la daano ci piège ba mi ngi xamle nag naan moom dafa amoon ay problème mu xaalis ah, si noonu kii di Omar Cissé ci la ko booleeg Mara bi di Samba Ba nee na nag daf ko laaj lu toll ci 2 millions 500 mille su ko defee rek xaalis boobu moom daf ko koy fulal ba mu mat 7 million ginnaaw bi mu ko joxee xaalis bi nag nee na daf ko jox benn téere ak lu mel ni cuuraay di ko dig nag ni ko say 7 moom fi lekk ay fan rek di nga ko jot nee na ndekete ca boobulee jamono moom mi le daf koo daa dee gëlëmal moom mi di sàmba ba nag moom ba mu taxawee ca kanamu baar ba waxul loolu ndax nee na 2 millions 500 yi daf ko jëloon rek ngir jënd ci li nga xamante ni moom la koy defaralee liggéey ba lu ci mel ni cuuraay bi ak téere boobee nee na moom mi sax nag dafay am ay clients yoo xamante ni ñu ngi ba ci réewum France yoo xamante ni ni dañu koy sollicité lu baree bari mu leen di defal ay liggéey li mu xam ne nag mooy kii di Mamadou Ndiaye dafa teeyul ndax cinq octobre loolu mooy délai bi mu ko joxoon ngir rek mu daal di koy mën a fulal xaalis boobee waaye moom mi le nekkul benn yoon ab dóorkat comme ni ñu ko yaakaaree moom Samba Ba mi le nag juge bi daf ko daan benn atu kaso boo xamante ni benn weer ba daf koy tëdd ràpp rax si doole rek 2 millions 500 yi jàmbur yoo xamante ne ni daf ko war a delloo kii di Mamadou Ndiaye. foofee ca diwaanu Mbàkke nag benn maçon moom lañ fa jàpp. Euh, mu doon yëngu ci trafic de drogue moom mi leen nag ñu ngi ko fekk mu yor euh, lu toll ci ñaari kilogramme ci yamba googe ak xaalis bu toll ci deux cent soixante quinze mille francs ñii di policier yu commissariat urbain bu Mbàkke euh, ñoom ñoo def boobu boobule opération ca quartier ba ñuy wax Ngàcci ginnaaw patrouille à pied bi ñu def nag niki mardi bi ñu génn ci la ñu jàpp benn dealer moom mi ñu ngi ko fekk ak deux cent grammes ak trente et un cornet jëmale ci yamba ginnaaw rek bi ñu jotee benn xibaar boo xamante ni nii foofee ca koñ ba am na benn trafic bu fay dox jëmale ci yamba joojule bi ñu defee nag seenu perquisition ci kërug trafiquant bi di wuyoo ci Idiba ci lañu fa gis lu toll rek ci 2 kilogrammes yamba rax si doole nag ay ciseaux ak xaalis bu toll ci deux cent soixante quinze mille yoo xamante ne nii bénéfice su jaayub yamba bi la moom mi la nag ginnaaw bi ko enquêteurs yi toggee laaj ko ay question si la leen wax ni moom mi la ab maçon la nangu na itam yamba ji nga xamante ni fekk nañ ko si moom nee na bile trafic nag moom mi ngi ci yëngatu juróom benn weer mi ngi nii ab fournisseur am sax nag wax na leen ni mu ngi foofee ca diwaanu Ziguinchor. moom mason bi leen nag daal di nañ koy defeere niki démb foofee ca tribunal grande instance bu Diourbel euh, di ko toppee détention ak trafic de chanvre indien mbokk internet yi fi la ñu yem ak yéen tey seen actualité du jour jox leen dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen xibaar.